Attention, s'il vous plaît. Nous allons démarrer la cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, nos hommages à Madame Sall présente, Monsieur le ministre des Monsieur le, de la, le Président de la Fédération sénégalaise de foot, chers invités, chers joueurs. Excellence, nous n'allons pas entamé cette cérémonie sans vous remercier. Vous remercier pour votre élan de solidarité et de générosité. Vous avez accepté et préféré de venir trouver les lions ici, au Qatar, pour remettre le drapeau. Le peuple sénégalais vous sera toujours reconnaissant et vous félicite par la même occasion. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en exergue une vision celle qui consiste à élever le Sénégal ci kanam ci ci kanam nous allons dans un premier temps passer la parole au capitaine de l'équipe ici présent pour son mot capitaine vous avez la parole Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, Messieurs les membres du comité exécutif, distingués invités, Messieurs de la presse, chers coéquipiers. Permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour notre maestro, notre leader technique, notre frère d'armes Sadio Mané. absent de cette cérémonie en raison d'une blessure. Niatio, tu nous manques, mais sois rassuré. Nous jouerons pour te faire honneur, mais surtout pour défendre valeureusement nos couleurs, comme tu savais bien le faire. Nos prières et nos voeux de prompt rétablissement t'accompagnent dans ces moments difficiles de la carrière d'un footballeur. Nous sommes certains que tu reviendras plus fort et plus motivé pour le Sénégal. Monsieur le Président de la République, notre capitaine Macky Sall. Il faut le dire, vous êtes notre premier capitaine. Mais aussi celui de toute la nation sénégalaise mobilisée autour de nous pour une belle participation à la Coupe du Monde. Monsieur le Président de la République, d'habitude, c'est nous qui venons à vous pour recevoir de vos mains le drapeau national. Mais cette fois-ci, la spécificité de cette Coupe du Monde a déplacé notre cérémonie ici à Doha au Qatar. dans notre tanière transformer le temps de cette Coupe du Monde en un de terre du Sénégal. Monsieur le Président, acceptez notre profonde gratitude pour ce long déplacement, cette marque de considération et de confiance que vous n'avez jamais cessé de nous montrer. Votre soutien constant pour cette sélection nationale et tous ses membres explique ses excellents résultats ces dernières années. En nous remettant ce drapeau ce matin, à la veille de Vous nous donnez l'onction de notre nation, celle de notre peuple et de sa diaspora, pour faire triompher nos couleurs avec force. Courage, discipline, abnégation et patriotisme. Excellence, Monsieur le Président, nous serons les dignes fils du Sénégal et de l'Afrique à cette compétition. Nous porterons haut le flambeau de notre nation et de notre continent. Nous jurons pour aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde, nous ferons honneur à nos peuples d'Afrique. Monsieur le Président de la République, pour terminer, je voudrais vous réitérer à vous et à l'État du Sénégal nos sincères remerciements, notre reconnaissance pour tous les efforts fournis pour notre émancipation. Je confonds à ces remerciements le ministère des Sports, la Fédération sénégalaise de football et notre staff technique pour leur engagement professionnel sans faille. Notre leitmotiv reste le même,

remercier le brassard de capitaine, vu notre capitaine. Voilà, merci Alors, merci beaucoup, capitaine. Non, j'allais dire vice-capitaine, parce le capitaine, maintenant, Merci beaucoup. Nous allons donc passer la parole au président commissaire Seck. Capitaine, numéro 27. Excellence, Monsieur le Président de la République, Euh, dorénavant, sur injonction du vice-capitaine, je dois dire, cher capitaine, nous sommes aujourd'hui ravis, encore une fois, de vous accueillir ici, en compagnie euh, de Madame la Première Dame, a qui, au nom de l'équipe, nous rendons hommage et nous saluons, euh, et qui sera certainement une source de motivation supplémentaire pour nous euh, demain et les jours suivants quand nous descendons sur le terrain. Madame euh, euh, Sall, nous sommes heureux que vous soyez là parmi nous. Je pense que vous, en vous voyant parler, on sait que vous serez parmi les 12e Gaïndés ou peut-être la première 12e Monsieur le ministre des Sports, Monsieur Yanko Bojatara, Mesdames et Messieurs les autorités présentes, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, nous on a le plaisir et la chance d'avoir euh, parmi nous un ministre donc c'est toujours un plaisir pour nous aussi de le citer. Excellences, euh, Monsieur le ministre, Mesdames, euh, chers membres de la presse, nous sommes ici au Qatar. Qatar, ça peut sonner comme Dakar parce que c'est traditionnellement à Dakar que ça se faisait, euh, au Palais de la République. Ici, nous sommes dans le Palais des Lions du Sénégal, à Doha, et nous avons le plaisir d'accueillir notre chef, notre capitaine, à un jour de, de, notre premier match dans cette Coupe du Monde qui fait partie des premières sous l'ère de notre chef d'État, le président Macky Sall. Parce qu'avec lui, il faut le dire, pendant tout son mandat, s'est ouverte une ère des premières pour notre football et pour notre équipe nationale. Et la question qu'on doit se poser, c'est quelle première nous aurons pour cette édition, parce que c'est ça notre ambition, continuer à vous retourner ce que vous nous donnez, Monsieur le Président, parce que jamais, et à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dirai, tant que je serai président de la Fédération, jamais un chef d'État n'a accompagné autant le football et autant, et pas plus tard qu'hier, il nous en a démontré la preuve. Vers minuit peut-être, il nous a appelé avec le ministre pour nous aider à trouver des solutions. Je veux dire simplement que nous n'avons pas de meilleure président de la fédération. Les joueurs lui ont donné le brassard de capitaine, mais nous le considérons, le considérons comme notre président de la fédération également. De par sa proximité, il est en Et hier, il a eu un mot qui m'a fait chaud au corps et qui doit nous motiver face à certaines situations.